ñu ngi nekk fii euh, dëkk bi gën a jege fi bokkal mais euh, gis ngeen fii ñuy utee ndox nii sareet euh, yi dañuy def plus de neuf kilomètres am na ñu jógee dëkk bi ñu war a dem nii pour defa benn teen dëkk boobu tudd Mbeloñ di ñëw fii benn waa jaamu yàlla moo fi def benn teen pour toolam mais tellement ndox dafa ñàkk ci gox bi ba tax gis nga ñoom ñëpp ñu ngi nii li ut ndox lii moom mooy nekk lu leen di ravitailler en eau te ndox mënuñu koo ñàkk kon nga gis ne tellement euh, maanaam besoin yi dafa nekk lu réel nit ñi dañuy am ay jafe-jafe yu tar pour am ndox loolu moom moo tax association Sakku Yiw du deñ ci di ñëw ci gox yu mel nii pour mën a jàppalanteeg population bi maanaam coono gii la population yi di daj. lii nag ñu war koo séddoog ñoom ku ne li mu ci mën mu mën ci def pour lii mu daal di teggeeku ndax on en deux mille vingt et un euh, vraiment lii waroon nañ koo dépassé mais su fekkee dañu jàpp ne état moom moo war a def lépp suba mbir yi du gaaw moo tax kenn ku nekk am na benn contribution bu ndaw bu mu ci mën a def pour teggil population yi ay coono bu ñu fàtte yoon yàlla salaam waxam la ku teggil ay nit njàqare yàlla teggil la ko adduna ak alaxira kon defe naa ni lii benn buntu aljana la boo xam ne ku ne xaj na ci ku ne mën nga ci contribuer pour jàppale jaamu yàlla yi te yàlla tax salaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu la la la la la la la la di ñaanal yàlla itam ki nga xam ne nii moom moo financé teen bii defal ko suñu waa dëkk ah ñu ngi koy ñaanal yàlla lu mu man ren yàlla na mun lu ko ëpp dewen ki ko financé defee dafa yéeme néew na nga gis ko ku ko defee noonu say waajur dëddu dem defal leen gasal leen teen dee leen ko eh, tabarakalla booba sarax ba ilaa yow mi diini tabarakallaahu eh, dafay dafay dañ koy gis ñoom bu baax a baax a baax. ba fu Nak di yem ndax wax dëgg yàlla teen bi moom fii mu taxaw xam nga ni ku génn da nga gis teen bi ku génn da nga xam ne teen baa ngi nii ki leen jox teen yi tamit koy ñaanal ak ak gudd fan bi vraiment nañ ko bu rafet te garanti am ndox bu bari te neex na waaw ndax manqué woon nañ ndox fii manquement boo xamante ne des fois sax dañuy

Voici la vie. On a de l'eau. yan yalla la barkeel yan na yàlla barkeel loolu moo taxoon keroog ma ni woni